min al wujudi l insan waxdahu la sharika la da ngay gëm ne jubluwaay bi tax yàlla sàkk nit lan la nit dafa war a xam lan moo tax yàlla sàkk ko loolu dafa bokk ci li lay jëriñ ci nga xam fooy teg sa tànk mooy nga xam yow suuf sii nga nekk loo fi ut si kan moo la sàkk kan moo la amal ki la sàkk wàcc la ci suuf si lum lay doyee fi suuf si nga nekk loo fii def bis dina ñëw nga jóge fi foo jëm foofu nga jëm loo fay fekk lii doomu aadama war na koo xam soo xamee tontu yii mooy lu tax nu sàkk ma suuf si nu ma indi lan laa fi def su ma fi jógee fu ma jëm foofu ma jëm lan laa fay fekk laaj yi boo ko tontoo ci sa bopp muy lu dëgg da nga texe kon sart bi tax nga nekk jullit juróomeel bi mooy nga xam lan mooy jubluwaay ñu sàkk doomu aadama ñu sàkk nit mbokk yi tey kenn ci yéen suma ko doon laaj këram gi mu defar lu tax mu defar ko ndax dinaa ci mën a am tontu wala duma am tontu oto bi mu jënd lu tax mu jënd ko dinaa ci am tontu wala duma ci am tontu jabar ji mu am lu tax mu takk ko dinaa ci am tontu wala jëkkër ji mu am ndax dinaa ci am tontu wala doom yi nga am matériel yi nekk ci sa néeg la ci gën a tuuti di kuddu wala paaka wala télécommande wala lal wala armoire wala fauteuil yi bagage yi nekk ci jumtukaay yi ngay liggéey sa kër su ma la laajoon benn bu nekk lu tax nga jënd ko indi ko ci kër gi mbokk yi ndax dinaa ci am tontu wala duma ci am tontu yëre yi ngay sol dàll yi portable bi nga yor montre bi nga takk benn bagage bu nekk nga yor ko moom ko su ma la laajoon bagage bi montre bi nga takk lu tax portable bi nga yor lu tax yére yi nga sol lu tax dama leen di laaj kenn ku nekk mbokk yi di déglu dars bi su ma la laajoon laaj yi ndax ding ma tontu wala doo ma tontu sikk nekku ci ne kenn ku nekk su ma ko laajee dina ma tontu waaw kon su ma la laajee yow lu tax yàlla sàkk la ndax war nga ma tontu wala munoo waroo ma tontu a kay war nga maa mën a tontu lan moo tax yàlla bind la wàcc la ci kaw suuf si lu tax est-ce que yëg ne yëg nga ne benn jubluwaay kese moo tax yàlla sàkk la hiya taatullahi taala mooy pour nga topp ko waaye wahdahu moom kenn waaye laa sharika lahu doo ko bokkaale dendale kenn lii mooy jubluwaay yow sama mbokk jullit soo xamul ana li tax yàlla sàkk la ana li tax yàlla bind la yëgal ne mooy pour nga topp yàlla taatullahi topp yàlla moom kese wahdahu moom kot moom kenn laa lahu nga bañ koo dendale ak kenn wala lenn yow sama mbokk jullit bi lii sart ci lii tax nga nekk jullit ndax munoo nangu ne yàllaa la sàkk waaye doo ko topp munul nekk kon yow rempliro sart bi yàllaa ma sàkk waaye duma ko jaamu loolu munul nekk keneen lay jaamu yàllaa ma sàkk waaye dama koy bokkaale loolu munul nekk kon sart bi yow nangu woo ko kon kañ nga koy nangu nga li tax buur bi sàkk la dafa am jubluwaay dafa am lu mu bëgg dafa am lu mu namm ci yow moo tax mu amal la loolu mu bëgg moom yàlla bi mu ko bëggee daf la amal yow nit yow doomu aadama yow jullit bi la amalee ba pare indi la ci kaw suuf ne dama bëgg nga topp ma ñaata aaya ñoo ñëw ci alquran yàlla di wax ne atiullah topp leen yàlla allahu akbar aaya yi kenn mënu ko lim topp leen yàlla gis nga nit war na roy rabu àll yi am na ci rabu àll yoo xam ne war nga leen a roy war nga jël seen jikko soo jëloon xaj tey xaj du topp ku dul boroomam boo génnee ànd moom li nit ñi di bëri jëm marché wala nga jëm fenn li nit ñi bëri ci mbedd mi yëpp xaj bi lu mu daw daw daw daw lu mu wiiri wiiri wiiri day ñëwaat ci ginnaaw boroomam lu topp kudul dul nit jullit warul topp ci kaw suuf si ci keppaaru asamaan bi kudul dul boroomam te nag boroomam kese te bokk na ci li yàq sunu jaamu yàlla mooy nanguwunu topp yàlla li yàlla moom dañ ko jël jox ko mbindeef moo xam ne yàllaa ko sàkk te sax ñi ëpp ci ñi ñuy jox li yàlla moom faatu nañ kenn nekkatu fi ci kaw suuf ñoom ñëpp ñi ci ëpp faatu nañ suuf war na leen bu yàgg ñu ngi leen denc ci bàmmeel yi tey ku gasoon seeni bàmmeel ah xam de mais wóorul sax nga fekkati leen fa naka na fi yàlla sa jalla jalaalu wa azza kamaalu ki moom lépp bindi lépp di doon naat lépp nga bàyyi ko fi di topp keneen nga bàyyi ko fi di jaamu keneen nga bàyyi ko fi nangul keneen moom nga lankal ko benn mbokk nee na ma démb ah yàlla de dana woon bu kenn jaxasoo nun nu lànk korona ne taxalikoo leen ñu taxaliko yàlla dana woon góor ak jigéen buñ joxante loxo ñun ñu bañ korona ñëw ñépp tee seen loxo ah, léegi nag kan la ñu ragal yàlla la ñu ragal wala corona la ñu ragal yàlla dana woon muuru leen ñu lànk korona ñow ñëpp muuru kon li kan lañ gëm corona wala yàlla yàlla de liñ ko lànkaloon lépp di ko def corona bi ñuy arrêté nañ tëj nañu baar yi tëj nañ dansin yi arrêté nañ làmb bi arrêté nañ football bi arrêté nañ caaxaan yi ndax ne nañ nañu arrêté jaxasoo bi pourtant yàllaa ko njëkk a ñu lànk ay corona bi mu ñëwee ñëpp nangu nañ léegi kan lañ gëm yàlla walla korona ndax lii lañ nii lañuy kenn la yàlla ndax nii lañuy topp yàlla yàlla jullit daf ko war a nangul jullit daf ko war a gëm jullit daf ko war a topp moom kese kot kon moom kese amul keneen la sharika lahu borom bi nee na wa ma xalaqtul jinna wal ins illa liyabudun nit ak ginne benn jubluwaay laa am ci sàkk leen mooy nañ ma kennal nañ ma jaamu man yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu buñ ma utal dend nit bu mu dendale yàlla ak kenn walla lenn jinne bu mu dendale yàlla kenn ak lenn nit ak jinne yépp li tax yàlla amal leen mooy pour nu kennal ko li yabuduni wa maana yacbuduni ni nañ ma jaamu lan mooy maanaa bi mooy nañ ma kennal nañ ma nangul loolu olof yi naan boroom kër ci këram kàddoom dong la am waaw jalla jalaaluhu weesu na loolu kon yàlla lan la am ci jaamam bi lu dul jaam bi kennal ko jaam bi bu noppee kennal yàlla bu paree kennalatul yàlla lan la ko yàlla la desel yàlla yéen yéen wax ne boroom kër ci këram kàddoom dong am su ko njaboot gi nangutulee déggal ay waxam ak lépp ca poubelle mbalit ba leen koy dugal ndax kilifa googu dootu na amati njëriñ ndax kilifa googu nekk kilifaam dootu na représenté dara ci biir kër gi yàlla nag jomb la loolu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla moom bu diglee ñu lank yaram lay jël gis nga yar bi mu teg suñu kaw àdduna bi yëpp rëpp na àdduna bi yëpp lëndam na ñëpp tiit na ñëpp a ngi daw ñëpp a ngi moytu ndigal yaa ngi tàmbali waaw ah, kookoy yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yéen mbokki jullit yi lii mooy darsa tey sart bi mooy nanu xam lu tax yàlla sàkk nu te jubluwaay ba ca gën a rëy mooy ñu topp ko moom kenn buñ ko boole ak dara ndax looloo tax mu binduñu ñoo ngi jégglu di ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla aafiya di ñaan yàlla balaa bi mu teg ci àddina bi yal nañ ko yàlla teggil moom yàlla mën na ko te yomb na ko yal nañ ko yàlla defal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.